président Père baabu maa lay nuyu bu baax di la siyaar. maa ngi lay fay lu bari. tey nag ci daje boo xamante ni daje bu tiis la génn àdduna Père Balla yante yan témoignage nga ñu ci mën a defal. waaw Balla de xam naa ci moom ni xol bi rafet na xam naa ci moom bu meree du mat une minute da cee daal di génnaat te am na fula am na fayda bëggoon na li mu doon def yàlla mayoon ko ci aussi. Euh, nit ku baax la sportif la xanaa di ko ñaanal sunu boroom rek yàlla na ko yàlla xaare àjjana. ban anecdote nga mën a jox ci moom loo xamante ne yaa ngi koy fàttaliku. Balla li ñu mën a fàttaliku ci moom bari na parce que Balla li mu def ci ay combat dafa bari ba Balla combat am li ñu mën a fàttaliku. jëflante woon nga ko ci doon jëflante kooku ay secret la man moom mais du du du doon lu ñuy wax ci ci ci net ci kii bi. Eh, nit ku baax la laa mën a xam ci moom nit ku baax la kay jeexal na wax nit ku gore la nit ku baax la yàlla na ko sunu borom xaare àjjana jaajëf mu am coow loolu du ko ci fekk lu mu am rek xam ne yàlla moo ko doon te ku gëmoon yàlla la ndax lu ko dar rek su daanee su daanoo day sant yàlla maa ngi leen di fay di leen jaale askan làmb di koy jaale waajuram di ko jaale xaritam yi di ko jaale école de lutte yi di ko jaale ancienne gloire yi yëpp parce que ancienne gloire ci la bokkoon ma nekk seen président ñoom ñëpp plupart bi yëpp teew nañu fi ñu fi teew ñu fi teemul yëpp maa ngi leen di jàllee. jar ngeen jëf.